na woon fa woon honorable député Abdou Lahad sa Sadaga jël jiw jébbal ñi nga xam ne ñooy baykat yi ñenn si ñoom nekk ci diggante Touba ak Darou Salam Pollé. 2013 ba tey ñu ngi koy def mën nañ ko wax wala lu ko jiitu euh, li tax ñu ëpp luñ koy def mooy jàppale président de la république Sénégal émergent tey ñëwati nañ def ko muy 2020 euh, ñu jël ko dimbalee ko baykat yi ci ay jigéen ci ay góor jàppale leen pour. ñu am lu ñu bayee parce que amuñu jiw ñu man leen a jàppale xëy na niñ ko bëggee demewut noonu moo tax euh, ñenn ñi jël nañ ñeneen ñi danañ ñëw jël si. mais dañ ko def ngir jàppale président de la république jàppale baykat yi di wax it ne programme bi mu ñu yor muy jàppal ma jàpp programme bu am solo la pour jàppale sunu askan. jàppale département Mbacké moo tax ñu tuddee ko PSE jàppal ma jàpp ñu fas yéene jàppale nit ñi ci seen wàllu mbay. mais nag euh, doole ji jafe na niñ ko bëggee parce que ñu ngi fii daar sam sama tool yi parce que yaakaar naa bii mooy ñaari wala ñetti yoon yoo xam ne fii lañ ko defee ñës yëpp Touba lañ ko daan defee mais nag euh, xëy na niñ ko bëggee jafe na mais ñi ngi féliciter état bi ci taxawaay yi mu taxaw pour jàppale askan wi surtout président de la république ni mu taxawee pour jàppale askan wi ñu ngi koy sant di ko gërëm di féliciter ministre agriculture di ko ñaan nag mu gën ñu jàppale gën ñu taxaw parce que lii ñuy def askan wi lañ koy defal kon nag ñu ngi cay ñaan mu gën ñu cee jàppale gën ñu ci taxaw di ñaan président de la mu jàppale ñu parce que fii ñu nekk euh, ferme la boo xam ne lépp a ngi fi ay jàmm jóob am na fi jàmm jóob yi nekk palais de la République fii la jóge ay xeet yu bëree ngi fi tey gis nga ñu bay 4 hectare yoo xam ne xaal lañ ko def te ñu ngi ko tàmbali depuis ci noor bi lañ ko tàmbali pour di kar nawet bi parce que xam nga ne fii nawet bi démarré gu fi ñu kànja ectuellement un hectare yëpp ñu ngi ko def. mu taseek waa gox bii di Daaru Salaam ak li ko wër jëloon ay jàmbat jébbal ko bokk na ci yooyu jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ndox mi nga xam ne daanaka mënee ko teg gët. mais nag fii ndox jafe na fi yaa gis léegi bassin yi ay jafe-jafe la am pour ndox jafe-jafe la ñu am pour parce que ay kilomètres lañ wute ju ndox yoo xam ne metti na ci nañ ko wute addiso doole boo xam ne tiwo yu ndaw la. ñu ngi ñaan it ñu gën ñoo jàppale gën ñoo taxaw ba fii ñu mën koo mën a gox biit ñu mën leen a gën a mën a jàppale gën leen a mën a taxaw. fii dafa doon frontière diggante bawal ak Jolof mu ñu am problème yu metti parce que fii boo fi xool forage amu fi forage amu fi benn forage amul fii amuñu benn yoon woo xam ne jege na fi mais jàpp nañ na xëy na fii président de la xamewu ko noonu ndax xam nañ ne fépp foo xam ne xam na ne. am na jafe-jafe yónnee na fa pour ñu jàpp ci mais fii nag xëy na xamee ko noonu ñu ngi koy ñaan mu gën ci jàpp fii benn forage lañ fi commencé woon di ko def waa ANA yi ñoo ko commencé woon di def 120 mètres lañ am ba tey àggul ñu ne li ñu yoroon ci koppar pour bënn forage dafa jeex. li ñeel tuuma yu ñu ci kaw président Macky Sall di wax ne kon dige yi mu digoon Touba te defu ci dara dafa sakkan honorable député di leeral ne yenn ci ay tali mat na sëkk la ca des mi ngi ci yoon wi. président Macky Sall li mu def fii benn président de la mos ko def autoroute Ila Touba bi tëli yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi mën naa la fu bari ci Touba nga xam ne mosuñoo yaakaar ne tëli dana fa jaar fu bari am na ko 30 bi nga xam ne moo nekk Touba tëli nañ ko ñu ngi koy tàmbali di ko tëli actuellement pareegul. am na yeneen tëli yoo xam ne préparé na pour ñu def ko ñoom kay li ñu war a wax président de la waxuñu ko dañoo war a wax ne mi ngi indi ay tëli mi ngi indi feneen tey nag attention ñaata tëli la président de la def Touba yoo xam dañ ko yóbbu feneen te Touba ko tax a ñaata forage la président de indi indi ñu mu dem ci yeneen dëk nga xam ne ñeneen courant noonu la demee neneen bu ñu wax dugg ci yooyu li am solo mooy am na ay yëf yoo xam ne mi ngi koy yónni pour mu ñëw Touba mais nag président de la moo mënul. ñëw Touba jox leen ba pare topp leen ne fii ak fii ngeen koy def dañu génne quota ne Touba la jëm mais ñu ne Touba la jëm mu egg si ñu may ma 5 kilomètres yi courant ma dem yóbbu ko ci beneen dëkk loolu luñ lu ci président de la man da yëg sax. ñu may ñu indi tëli ñu ne tëli nañ ko def ma dem ci fexe ba def samay pexe bañ na tëli may nañ ma ci ay lu mu jaar fen ma jël ko yobbu ko wala ma yóbbu ko ci beneen dëkk lu ma ca man lu ca man kon ñu ngi ñaan ñu gën ñu jàppale mais di lancé wale appel président de la république ci taxawaay bu rafet bi mu jàppale réew mi. ci corona bi taxawaay bu rafet bi mu jàppale réew mi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu dund bi ak jafe-jafe yi ni ñu doon dund ñu ngi koy sant gërëm ko mais di ko ñaan nag mu gën a taxaw te mu bàyyi xel it nag ne li ñuy wax ministre ak ministre yi ak direct directeurs yi ñu gën a jàppale askan wi gën a feeñ parce que président de la wàcc na def na li mu war a def jox na leen ay responsabilité nañu dem jàppale askan wi jàppale waa parti bi nga xam ne ñoo fi nekk di jàppale président de la république na naa lu war a jàpp la